laa def tey nan la def ba daani lii ba pare bàyyi ko nii te du la ko wax de day def yàq ba pare moom moor ñooyam dañu yàq te duñ la ko wax te nan laa koy defee tey te bu ñëwee fii dalay ëpp làmmiñ nag man kii nattu la xaw ma fan dem leer na ma ne ma nga ci atelier ba naan day xar ma tak day xar gaay waaye dina ma fekk fii ñu ne naan xam naa ne maram ak biraam du ñu ànd duñ tàggoo sonn ba pare. Ousmane yow nii rek nga mën a jéggi yére yi nii ko xool nii nii rek nga ko mën rombe. yaa ko fi teg. yow est-ce que yow yaa daaneel daan. kan moo teg lii fii. man man man daanu laa koy def de mais du yéen daanu simple yi naa ko def. Ousmane xam nga lii atelier maa yow ñoo fiy dem fi laa la bàyyi fii kenn dugg fi di daaneel lii donc yow la. pourtant li gën a nice même fekkee mënoo koo defar sax ndax amoo njëriñ nga mën ne ma feuse bii daanu na man ma jéem a xool ku ko defar mais nga di ko romb nii. kii kii daanu sax ñi ñu daanu seen daanu amul njëriñ ñun ñu daanu la ñuy xool fan ñu daanu la ñu daanu ñun ñu seen daanu dafa amul njëriñ. waaw ah, jàppee ko noonu te man dama sonn sax ci waa ji. jàppee ko noonu dañ ci ko góor jigéen la. ba ma nee góor jigéen de moom dinaa ci mos a ubbi tete jaat yow parce que nag yaa ngi café loo xamante ni sama diggante ak yow bu ñu waxee rek. parce que li nga def nii góor jigéen yee koy def di bu jigéen waxee góoru war ban. dégg naa boo waxee benn ñu ne wax dix ba wër la tëb. ay ay fin ah, de laa dégg moom. yow nga xamante ni giwin nga barki war nañ xoolaan la ah waaw yow de yow nii doo ma la dese woon ak man. a man réew nga de yow. yow giwin de xam nga iman. <laughs> xam nga yow xamoo ko la yow iman iman bu mag lu ma tiif de du ma ne ko gis yow parce que du ma ne ñu mën dara yaa ngi ko gis ak góor mukk mu ànd ak góor. Ah, ne day ak gëm liggéey mais ne maalikum man maalikum ba lu mu gis. yow ba di dalaa ko jàpp sama bopp boo xam ak benn góor man xam naa ko man fës. ah moo ma jig fi nga jàpp fi nga jàpp baax kenn yow kese di defal lépp sa bopp. plaisir boo xamante ni ci yow lay jógee di delluwaat ci yow kenn maanaam partagé ko sa bopp dafa takaa daax. laa ilaha illallah loolu moom mooy lépp waaye jox ma ok alma quinze mille dama ko soxla. quinze mille. damaa soxla quinze mille. ma ne aw ma quinze mille Ousmane. loolu ñi ko bëgg xëy na dafa dem liggéey. waaw léegi yow. sama nga demoon jaar xarimat xaw ma gaz. dama lijjanti fa quinze mille da ngaa def na man dama dof li nga nekk da nga yaakaar yëgu ma ko. lan laa nekkee. Hmm. boo yaakaaree li nga def yëgu ma ko. lan laa nekkee. war a liggéey ci taxawaal loolu liggéey ci atelier jàmbur ci taxawaal. kii sax moo la gën ndax mu ngi ah! xëyee moom mi ngi si liggéeyam ndax bu xëyee mi ngi wër di fen mu ngi ci liggéeyam Pes maa la kumba Pes a waar ah, waaw yaa ngi ko nga ne nga ne Pes bu Pes Pes a ah, toog Pes maa la kumba Pes maa la kumba waaw bambara. bambara bambara naa di ko la bëgg maa ko gaaw a doxal. Ah, ah, xam nga fu ma demoon. waxal belel. belel comme ni ko waxee. belel. belel. ma lool. waxal ci jëwrin. waxal ci jëwrin. ci di ma toppandoo. waxal waaga. ki laa demoon ci Diorin waagoon laa demoon loolu bële traduire ci moom laa demoon kooku dafa daf maa woo ne ma dégg naa fan yi da am xarit bu tudd Malick Coumba. waaw ma ne ko waaw mu ne damaa bëgg yóbbu papaam ak yaayam Maka Koulibanta Maka Koulibanta la bëgg yóbbu sa papa ak sa yaay. ay du ah baax rek wax fi. ñaari bal ah def def def centième sélection am ah ba pare eh, eh, ma xool ak ak kii lenn daal la def nag mu naqari mooy mm-hmm. wax nga dëgg de lenn boobu moom boobu moom boobu moom bala kumba xam nga ñun Malick Coumba nag yéen ndeenaan eh man de Malick Coumba lum la jaaral gasak baay yaay gani baayu baay gani jàpp ci fël nga dugal nga xam nga xam nga Feuz boobu ba léegi. maa ngi dama lay wax rek dama lay wax sekku ma ak yow ay Mané Koumba ay dugal ak yooyu sekkuñu ko man ak yow. waaw ñun ci match la ñuy wax ci Sadio Mané dugal dugal ci match la di dugal. waaw ah, fa laa yem rek man dama réew trop. Ah, xool rëbbay la affaire yi xam nga côté. côté man xam nga lu ma naka. jaaw bari li mu réew mi jaaw bari. yow rek leen nag jaaw xeesal la koy tax gi ñu génn ko équipe. ah xa xaaxoo sax ji nga jaaw bari bakk Cheikh Diombaye bu ñu ko tegal Sénégal ñu gëm ko wóolu ko mu def fi trophée yaa gëm sa jubbaay. ah moom la gën a ne ma fàtte la. borom ramal ma séeri ila Jurbel la dal la sattil al ayano sirama fi séeri ma raamu. raamu raamu ma si bara xamoo lan ak lan tuuba. lan. ah. jaaree wala tuuba moom de jiggi na te dem. tuuba tuuba daale. tuuba baax na comme tuuba la daale. mais jaaw ba nu ko indi. jaaw ba mënuñu ko indi parce que day xeesal lenn rek daal laa xam bi moom. wax dëgg fa xam nga ñun Sadio desee latuñu dara Mané. man dese ma. ma dese. munu. yow mën a fen. yow Sadio Mané yow. fës fës Sadio ak Diao ko def ko ma. xam nga fës moom bu xëyee mi ngi toog di liggéey liggéeyam di wut lu am. waaw ñoom ñi ngi liggéey yéen yéen di xëy di taxawal. ah ñu ngi liggéey ndax boobu. xëy si war a toog liggéey toog di fen. man nekkuma ci seen kër. oui ma eh maa ngi kumba xam nga man nga ñëw di wax ak yow daal wax football ñun affaire de góor la wax waxuñu waxi géwél fu mu ne nii waxi la nu muy déglu man ni mooy ñun Sadio Mané desalatuñu dara Sénégal. waaw xam nga lu ñu doon rêvé Sadio Mané ñu ko indil. muy coupe d' Afrique des nations. yaa ngi comprendre yóbbu nañu mondial maanaam def na lépp mais Sadio Mané référence la. lan lan mooy référence. maanaam moom dañ koy roy moom waruñ ko génne mu am benn comportement mel ni lu mel ba nit ñi di sentir ni Sadio mer na. ah mu nekk moom da koy génne bàyyi complexe.